muy sur la question de la candidature. ban candidature. bu Macky Sall troisième bi. bokkuma man bokk bokkuma ak lecture ak ñoom. Mhm. parce que ñun dafa am loo xam ne dañu koy passé. président Macky Sall moo wax ne à moins que ñoom ñu bëgg a indi débat bi pour moom mu jëlaat position mais la position de Macky Sall sur cette affaire là moom ci boppam président Macky Sall elle est claire et elle est définitive. mooy que du def beneen mandat. da ko dégg mu wax ko. il l'avait dit. waaw ay am na ci ginnaaw. non il l'a dit. oui ay am na ci ginnaaw répété donc il l'a dit. donc yéen ci loolu ngeen di tënku. waaw ngoonte ba da naan wax na ko. doone waxoon na ko. d'accord ndax leneen dindiwu ko. waaw gis nga. am na mais waaye mais oui attends attends dès l'instant que moom nee na du nekk candidat wax na ko ak ay kilifa yoo xam ne kilifa yi xam ne ñoo gën a mag ci Sénégal ci lañ bokk jàpp naa ci kenn Cécile Mansour. mais mu ñëw ñaanal ko mu ne ko benn ngay wut boobu tam mu ngi ci benn mu ne be am nga benn. Mm-hmm. ñaar ngay ut utoo ñett utoo ñeent ñu ne waxul mais ana wax bu gën a leer ci yow ci ñaar nga war a yem te loolu ngay ut bul soxla ñett bul soxla ñeent amuloo ci droit si loolu lay mu signifié waaye léegi moom paaseegul foofu nit ñi ñëw naan ma gént na ne muy déposé gént na mu téye enveloppe lu sama yoon ci loolu. mais le président Wade avait dit la même chose. encore une fois. moo tax ñu xaw a ragal ma ne fi ngay waxe nii ak fi ngay waxe nii mhm. ak fa nga jóge ak daawoo waxe la même chose euh, ligne éditoriale bi nga fekk yi nga fekkee na nga daan liggéey ak fii lu benn loo bëgg a wax euh, c'est pas la même chose gis-gis man na déglu ma déglu ma rek déglu ma rek ma expliqué bu baax ñëpp d'accord nañ ne Abdoulaye Wade defoon na dans la constitution une disposition transitoire mm constitution bu bees la parce que d'accord nañ ci Seydou Madani si bind na ko ñeneen wax nañ ko ne empire bi mu bokk bële mandat la moom donc bi mu ñëwee ba foofu ñu ne disposition transitoire bi tax na mais Macky dafa ñëw ne li Ablaye Wade bindoon baaxul bind bi baaxul mhm. demin bi baaxul werante bi laa bëgg mu deñ mhm. completement ci Sénégal kenn dootu ko wax ba àddinay tukki donc moom constitution la moom mooy xelu constitution bi moom moo xelal ki ko bind ki ko bind dina koy wax naan nu ne peut faire plus de mandat couru ba nga xam ne seku bi nekk këram seku seku bi nekk këram da koy réciter ngoonte bon Sénégal yi xam nañ loolu bu ñu boolee lu bokkul na ñu bàyyi waxu daaw ak daaw jéeg ak kaaw daaw ak daaw jéeg ak kaawaati daaw jéeg ak daaw jéeg bu ko indi bu ren 7TV euh, la 7TV aujourd'hui n'est pas la 7TV il y huit ans am na lu fi changé am na doxalin bu changé am na ay nit ñu bes li am ba am moom mu nee na moom moo bind constitution bi moom moo ne amu ci droit 2024 mu jeexal. léegi li wonte bon li ñu war ñun ñëpp. Mhm. mooy orienté wu ci li nga xam ne moom moom la décidé ne il n'est pas candidat maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut aider le président de la République à organiser des élections démocratiques. sincère pluriel boo xam ne bi ñëpp lañ ci pour la première fois dans notre histoire moom mu organise xam nga mekk ñu si ñu ne lay am ku nekk xamul lay xew ëllëg da nga jàpp ne dama ñëw ngoonte da nga ma jàpp sama kàddu ñu war a waxtaane dara nga ne ma li la ñuy waxtaane tey doo ma laaj football doo ma laaj basket parce que loolu lañ jàpp bu fekkee ne mënuñu jàppante ñun suñuy kàddu lu ñuy jariñati waxu président de la du waxu ke du wax la. mais justement président kàddu googu noonu ça revient encore et encore. Par parce que le débat juridique am na ñu naan il pose pas. ma ne kàddu gi. xam nga le débat juridique se pose xam lu tax. Mm-hmm. le débat juridique mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs loolu du débat mécanique. pourtant le président Sall est allé voir un juriste français laaj ko la question. xam naa ne juriste français boobu ma wax la ñu benn affaire bu gàtt rek liiruma ko. Uh-huh. mais premier paragraphe laa di dama tiit parce que dama gis muy érimé constitution yi ne nous sommes à notre quatrième constitution. fa a juumee. dafa daanu dafa xalangu paragraphe deux. Uh-huh. fa mu ne nous sommes à notre quatrième consti quatrième constitution. fa nga pare ci wax ji ba nañ ko lire rek. loolu tous les tous les tous étudiants de deuxième année de droit dinañ ne kii kan la et ensuite dafa am ko joxe leçon bi xam nga. Uh-huh. dafa am ko doon consulter ay tubaab léegi bàyyi na ko nee na Serigne Diop la consulter bi Carcassonne euh, waaw xam nga moo lay wan ne donc euh, on peut consulter on peut consulter des autres ailleurs mais li jarul consultation ki ko bind ki ko xalaat yeew bind ko sant ko ni mu bind ko waaw mu wax ko ay nit mm-hmm. waaw mais man li ma gën a jaaxal mooy moom naka lay def Seydou Gueye Boun Abdallah Dionne Omar Mimi Touré ñooñu nga xam ne moo leen ne dem leen ngeen wax lii. Ismaïla Madior Fall. waaw ñooñ ñëpp nax la leen di def est-ce que nit est-ce que moom am na capacité man en tout cas aw ma courage moo am. Mhm. aw ma courage wu ndax sénégalais yi noonu. aw ma courage yi wax ak xalif généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak nit ñi toll nga xam ne ñun ñooñu ilif wax leen loo xam ne lay du ko du ko def ba pare wax koy taalibe donc moom fi mu jëm bu ko deful mooy xuloo ak taalibe yi ak xulee ak sëriñam. pour loo mu wax sànq président nee nga ma. 7TV bu tey du woon bu démb nee nga man nit mën na am benn mbébét benn yéene ñu dem ba ci biir mu soppeeku la leneen xew foofu laay waxee aussi dans le cas de Macky Sall. waaw mais man da nga defee dama war a am yéene yéene lu baax dem jàkka ja dem fii woor wala jëlee ma bëgg a dem naan li yàmba ak du du évoluer noonu. ci lu baax lay évoluer xam nga nit. il faut que il faut que ñu bàyyi discussion yooyu euh, discussion yi xam nga mooy lan. Mhm. yéen xam ngeen li ñu war a def. xam ngeen li baax ci réew mi. pousser les hommes politiques à venir dans ce sens et les interroger dans ce sens. mais le président kan moo ko gën a kawe ci ci ci maanaam ku ñu war a roy ci respect institution gi parce que am na acte yu mu posé yoo xam ne nee ma. jëfandikoo ñooñu ñooñu ndax bu ñu rombee fii ak seen da ngay obligé taxaw. non est-ce que ñooñu mën nañu la yóbbu quartier. déedéet est-ce que ñooñu ñoo la jox seen impôt. waaw ngoonte moom ñooñu il faut ñu ñu. Macky Sall moo ñu indi pourquoi vous voulez ngeen bëgg ngeen bëgg li Macky Sall moomal boppam ngeen bëgg ko jox ñeneen Macky Sall n'est pas Benoît Sambou. li ma bëgg wax mooy li mu ak posé comme acte nuñ ko mën a jàngatee. yow noo koy noo kon. moom nee na bu ko waxee partiam tas bu ko waxul wala gars yi du ñu liggéey am na ci sañ-sañ. parce que buggul ma kisaan loolu mën nga ko expliquer noonu mais man jusqu'à preuve du contraire. Mm-hmm. Macky Sall dama ko jox. dayo bi ma jox sama bopp. mais loolu moom xaw jaaxal naka nga arrivé encore a avoir foi ci ay kàddoom ak ci kiwam par rapport ak lépp li nga xam ne vivre ngeen ko yéen PDS te mu jóge ci moom yaa ngi koy wax sànq. mais mais mais mais tooñ nañu plusieurs fois d' naa ci wax mais après bu nit bu la tooñee dootu leen waxati ci àdduna lu ma waxati doo ko gëm dama lay laaj. ah sëñ Abdoulaye Khadé dégg naa ne woon na euh, wóoluwuma la warulaa métti mais wóolootuma la moo la moo la war a métti. Ah, mu ngi noonu man nag waxaguma ko wóolu damay jàpp li mu wax rek ba gis le contraire damay jàpp li mu wax waxuma ne li mu wax dina am de ab du am mm-hmm. mais comme moom la ma wax te man moom la wax samay kilifa man mm-hmm. mais man dinaa ko fekk ci loolu ba keroog ma may gis loolu jour bu taxawee nag ne ma nangam lii moom mënul nekk mm-hmm. bu boobaa man ma jël